Thank en tout am ci école bi day waaw comme sabar gu tase maar day taali la ko si yéene ne dëgg la Serigne Mbaye Thiam waaw ma ne la pëccaxoo bi nga xam ne moo am ca wàllam école ba day moo ko indi parce que moo daal di kon yëkkati kàddu daal xam le ne G6 mi nga xam ne ne kon mi ngi njawoote lu tolloo juróom benn kon ci ay syndicat ñeenti ñëpp daal dinañuy dakal kon gereew ba ñaar waaw daal dinañuy xam le sax kon amal nag am gereew la ilaha illallah ndaxte bi nga xam ne nag amoon na percerait la fissure. Serigne Mbaye Thiam nag ginnaaw ba mu yëkkatee ay kàddu xam le ne saisis sasa waaw ma ne la gis nga mbir moomee eh. jubóo bi nga xam ne moo waroon am na ci diggante nguur gi jàngalekat yi day mbir ma daa mujj yàqu maar day taali waaw parce que syndicat yi day ak ña nga xam ne ñoo ci doon dokkoon ay tànk jàmm dañoo mer lool ba fut le soleil yéene kaay ci juróom benn ci syndicat day waaw daal dinañuy dakal na kon seen grève ba waa SAEMS e ak waa e ci enquête xam ne bés bu syndicat jàngalekat yi la continuer lii ñu nekk nii nguur gi tamit ñun dàq ñu de def li nga xam ne moom la ñu constitution bi daal di kon sant laa la wax parce que xale yi dañoo war a jàngi droit à l'éducation waaw Serigne Mbaye Thiam ne parce que nit ñi ne dañoo mënul continuer rek ci lii ñu ne ba kañ ba kañ ministre éducation nationale yemu ca parce que Serigne Mbaye Thiam nee na gis na gouvernement bi day waaw dafa mënatul nangu nag njàng mi ci am yi daal di nax saay daal ba yegg ca année balance ma ne la duñu ko def tey te duñu ko def ëllëg laa la wax mooy samay kaddu de ay kaddu sawru seen secrétaire général waaw nee na gouvernement bi li nga xam ne kon signé woon na ko day wallaay bu dee defu ko ñi nit fii ñu nekk ni le duñ fi bougé un yotaa laa la wax ilaha illallah yi moom day continuer duñu ko dakal day te ko dakal nag ëllëg sawru seen yamu ca parce waa ji nee na bi day bu ko neexee na def di diidalaate di yàq de rek dañuy yekkal ci gaalo xaja ñin daal bare nañu fi nekk nii laa la wax laa Serigne Mbaye Thiam day nee na juróom ñeenti yëpp wéer nañu ngan waaye syndicat tamit day weddi nañu ministre bi kon ca suuf nee nañu ñaari syndicat kese ñoo dakal grève bi ñeenti syndicat Sagna ne waaw parce que Serigne Mbaye Thiam day li wan il a montré ses limites la wax il faut mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut looloy dëgg Abdou Sagna ne ministre bi kay li bëgg fi nek ni moy mooy féewale xar waa G6 sañuy ñaar ole Serigne Mbaye Thiam jàlla koy waxtaan muy wone dolem dal di mel ni mbeuru làmb élèves yi dal bu ñu sacrifier ni le jàppale ne Serigne Mbaye Thiam la waaw parce que ministre bi kat sul bëgg dialogue laa la wax léegi nag dem na ba xamne ne musiba mbaa bakumba am na année bi yàqu na lay doga xamne xam ne def na erreur mom Serigne Mbaye Thiam te erreur nak bu xasse ba am rek amna kon erreur la erreur la la tay moy yene kané ne Serigne Mbaye Thiam day day eh, indi na am ci xi jaaxaa xam ne kon ci mbir mi mardi yalli bag soppli ne Serigne Mbaye Thiam kay waaw moo ni nag waxtaan ba ci wóodee daa dem am Serigne Mbaye Thiam yàq li mardi tali waaw parce que nag daa a suufu waa ko sidé ak waa CDS waa dialogue social waaw ndax ñoo ñee ñoo doon waxtaan ak waa C6 ma intercadre ba day nee nañu ci grève ñetti fan la jëm grève total te suba ci talaata ji la ñuy tey lii lan la waa parrainage bi tamit lan la tribune yéene kaay ne en tout cas ko ci assemblée nationale day waaw waaye mbir mi jeexagul dee déedéet ndaxte waa nguur gi day da ngay continuer ak ñoom di jubilé kontaan bay bëgg dee waaye waa opposition bi day mooy loi a organiser waat beneen bi suwaat ci mbedd na xol ñun opposition bi am nañ ndam ci xeex bi nga xam ne kon doon nañ ko xeex wàllum coup d'état constitutionnel bi opposition bi ci tribune yéene ne ñun dee dañoo am ndam ba muy ñetti yoon Uh-huh. opposition bi ne waaw bu njëkk ba mooy lañ ca am nañ ko adduna yëpp ñoo nekk ak opposition mooy syndicat yeeg mouvement citoyen xeex ak ak yelleefu doomu aadama du droit de l'homme économiste yi kilifa diine yi kilifa aada yi ñëpp alluntin ne fa ñu jëm nii ci waajaayu élection yi xeeñul neex déedéet Abdou Fall APR te mu jóge PDS ci tribune yéen kaay waaw nee na gis nga élection député yi passé waaw ca la opposition bi ñàkkee élection présidentielle yi di ñëw ah, waaw Cheikh Mbacké Sakho mouvement Macky ñu ñor nee na président Macky Sall gagné na élection présidentielle yi yàgg na Macky gagné na premier tour nag la gagné ah, ah. Mamadou Diop Decroix ne balaa nga naan naam ne fa ci Box Populi Macky Sall ñàkk na nguur gi le 19 avril bii ñu génn comme Ablaye Wade ni mu ñàkkee woon nguur gi le 23 juin bale 2011 l'observateur ne bilaay tey ma defal leen jaar-jaaru Macky Sall jinne la de ci wàllum politique Macky mii bilaay daa aay te dañ koo mës na di ko xeeb daal di ko sous-estimer ku xeebu daay mu lakk sataan maa la ko wax jëlal leen ma Macky Sall fa mu jógee xeex ba ak Ablaye Wade ba ci 19 avril bii ngeen xool ba xam combo la Macky du combo de ma ne la jabar ji di Marème Faye Sall bis am na mu ne ko waaw yow ni jaay di astafurlah waaw yow président est-ce que yaa ngi bàyyi xel tolluwaay réew mi situation bi fi mu toll nii ndaxul Macky reculé de déedéet Yoro Dia journaliste la nee na opposition bi dee billahi bis bu ñu xeebee Macky Sall mi lee def musiba bu ñu ko xeebee juum de le soleil kaay ne xale yi nga xam ne dañ leen di génnee ci tali bi ci Ndakaaru Njaay jël jób nii a ci ñaar fukki fan ak day jëlee gum nañ téeméer ak juróom fukk ak ñeent cent vingt quatre enfants libération yéene kaay ne musiba bi nga xam ne nag moo am kon ca SAR contrat bu jaarul yoon ADAX lu tolloo téeméeri million ci ay euro na ca coppitili lamb eh ja tribune sox nañu ak Balla Gaye ga lig Nikolaay nee xam naa moo ngi seetaan dama man lig man rek maa mën <laughs> naan may laaj dong may laaj dong xanaa ñaari mbër yi dañoo jël avance boo paree ma ne la tëjal Samsung ak